gis ngeen ko mu ngi noonu di doog a yegg si yaakaar naa ne actuellement actuellement fi mu toll nii mu ngay génne ay saraxam te loolu yëpp ci tegtal la ci làmb fekk naa ko stade Diom Iba Mar ne ko sa diggante ak Franc mu ne sénégalais yi lu bare bare bare li ñuy wax ci Franc dañ ko bëgg yéegal foo xamante ne yeggu fa waaye man soq am naa franc ma ne ko déet waay mu ne ma bu ma fayee lu ko jaral ma jël franc ba mu ko waxee nag ñu bari ci làmb yaakaaroon nañ ni déedéet waaye nag naanaan la ci làmb boo xamante ne vraiment kenn du naataabale mun bëreem kenn du naataabale takkusaan yi nga xamante ne bëree na ko moom soq mu nekk xale boo xamante ne bu tuusee nga xam ni mbër la deretu mbër mu ngi ci moom bu bëree nga xam ni mbër la. deretu mbër mu ngi ci moom sénégalais yi nag xam naa dañoo xaw a umpale kan mooy soq waaye loolu yëpp dina ci wax ndax combat bi ñu léegi daa leen képp ku ciy wax wala ku ci laab-laabe lañ bàyyi ba ñoom ñaari mbëri ku ci nekk préparé wu ba ñëw ñu taxawee simmeeku ñu xool état de forme yi ku ci nekk mun a analyser combat bu jëm. waaw. lu ñëpp ne Franc moo mën Sokh. Ah. loolu moo ma gën a neex si combat bi. Moussa Ndiaye. waaw. loolu lan moo la loolu moo ma gën a ne dama xam ne ñooñu dañuy caaxaan. Hmm. bu toll ni ñëpp ne Franc moo mën Sokh loolu moo ma gën a neex si làmb ji. loolu bu ñu ko waxee lan lay def le 19. Franc bu ñëwee arène nationale ñu tegal ko bakkan bi. kan nooy teg yow wala Sokh. ñun ñëppay teg bakkan bi du ko yóbbu. non non Franc benn bakkan la soxla. barki Seydina Mohamed du ko yóbbu. le 19 du ko yóbbu. Ah, Franc bu ñëwee mu xam ne du dara. Ah barki Seydina bu ñëwee le 19 bu ñëwee dina xam ne du dara. daa xam nit ñi dañ koy nax rek. bu yow mu dem na dem yokku cere dolli ñeex na dem entraîné ji lu wóor parce que xam ne mbër mi ngi entraîné lu wóor di ko xaar heure bu ñu dajee mu xam ne amul doole. soq combat bi taxaw na de. maa ngi lay ba jëli ñu ngi lay fay bu baax di la màggal. waaw combat bi taxaw na waaw. combat bi wàccaay tontu la wala xaw nga ko. diisal tuuti non non combat bi mënut diis ndax koo xam ne dama war a bëre moom la rek combat bi moom diis moom mënu koo def parce que tey maag moom dañoo toll ci war a rek dañuy bëre rek kon tey buñ ci waxee rek dañuy waxtaan rek déggoo mu jeex ñu nekk ci leneen waaw. combat bi yow yaa ko jël wala say mbokk ko jël wala dañ la koo jëlloo. non combat bi déggoo li ma la wax man loolu wax naa ko fépp te ba ma leen koy wax nit ñëpp dañoo yaakaaroon ni Sokh day wax rek buñ ko joxee Franc du moom ndax yow dégg nga ma micro arène national am loo laaj ma ni la dafa am proposition yu ñu def te dafa am niveau boo xam ne mu ko dépassé ci làmb bëreetuma ci lamb ngir tur bëreetuma ci làmb ngir soq-soq wala ay coow wala ay biri damay bëre ngir sama carrière te booy bëre ngir sa carrière nag il est nga def fulla ak fayda comprendre nga comme ñoom def nañ seeni pexe ba taxawal combat bi te fekkoon man ma bëggoon combat bi bëggoon combat bi nañ ci yàlla yóbbu ak bañ yegg saak jàmm incha allah bu nee tey combat bi combat wu tay ma dee la ci soq lan ngay wax yow mi nga xamante ne yaa nar a nekk ci digg géew bi ak Franc alhamdulilahi rabil alamin laay ndax yaakaar naa ne c'est la première fois sax genre bruit bi ma dégg ko ci sama làmb sant yàlla la mais li wér te bu ñu ci yàlla yóbboo ak jàmm bañ yegg saak jàmm dinañ xam ne soo ko jëlul Franc lu ko neex jëlul franc ngir xaalis jëlul franc dara ndax sama carrière moo ma gën a ñor xaalis bii ñu ma fay maag franc waaw te combat bi dafa am lu mu war a joué ci sama carrière ñu ci combat bi dafay tukki bëgg nañ xam tokk bi fan la jëm mbooro laa jëm mbooro non mbooro moom du tukki mbooro laa ah. mais gars yi dañuy wax man moom maa ngi fii fu samay encadrement ni soq fii la war a dem toog dëkk ñu entraîner parce que combat bi tamit du combat boo xam ni combat la boo xam da nga koy jël ba pare fu waay tourné gis la wala ku la dékk micro nga wax wala fii wax jeex na ndax Franc kenn du ko jël ba pare fu la waay dékk micro bu safee wax nga wax boo saful wax nga wax champion laay bëreel te champion booy bëreeg moom dafa am comportement boo war a indi ngir say mbokk xam ni kii lim jël ñor na ko li wér mooy fépp fu sama nijaay bi décidé ak mafia bi ni soo ko fii la war a dem toog pour nekk ci boppam pour luy taaral le 19 dinaa ko def incha allah. voyage bi boo déggee ma wax la ko bitim réew sox dinañ ko xaar mu décidé wuñ pour ma génn dem France wala Paris wala fenn non non maa ngi fii. waa mais feneen fu ñu décidé nag foo xam ne war naa fa mën a laaxatu pour am esprit tranquille donc laa soxla ah. hmm. pour mën a entraîner li ma bëgg a entraîner. Hmm. préparer li ma bëgg a préparer. Hmm. ndax bis bi may bëre. dafa am benn image boo xam ne dañ ko ci war a indi doonul sax bëre yi dafa am beneen image boo xam ne ak beneen comportement boo xam ne dañ ko war a gisaat ci Sokh te amateur yi loolu la xaar bëgguñu rek Sokh ñëw ëpp doole Franc daan ko wala Franc ñëw ëpp doole Sokh daan ko dañoo bëgg combat boo xam ne ñaari mbër yi buñ si meekoo dongali ci stade bi sax ñu xam ne tey dinañ dund làmb avant tout bu loolu xewee ba pare arbitre tribune bi yëpp toog seetaan maag Franc ma jëflanteeg moom. ma jëflanteeg moom ñëpp duñ laam laamee mën a bëre Franc. waaw ah. waaye combat bi passé surprise daa am ndax daa dóor mu daan. Hmm. te yow xam nañ ni mën ngaa bëre. Hmm. xeex boobu yéen ñaar sa diggante Franc est-ce que séntu nañ ci xeex yéen ñaar. combat bi day am lépp incha allah. Hmm. lu mu ci bañul bañu ma ko ci. lépp dina ko am. bu soobee yàlla ak bi. parce que xare moom boo da ngay pare lépp. te maag Franc suñu diggante mënut a sedd. mënu sed moom wax dëgg fa yàlla yéene naa ko jàmm ak salaam bu ma sañoon barki salaatul faatiha weewam du xureeku jàmm lay am ak tawféex ba bis ba ba le 19 mu indi forme bu ñëpp bu jaaxal ñëpp ma indi état bu jaaxal ñëpp ñu dalante ci kattanu yàlla ma daan ko dem ñibbi. jaajëf ñu ngi lay